salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Sénégal Niger Sénégal moo ko patal benn bal ci dara ci matt boo xamante ni joué nañu ko ba ci 99 minutes ñu cay soo a am but mën nañu wax ne match la boo xamante ni kat dégg nga maam jeexewul ak xol bu sedd ndax sénégalais kat ñu ngi doon xaar ci équipe bi lu ëpp li nga xamante ne wane nañu ko tey jile doon xaar tam ci coach bi lu gën a dal xel li nga xam ne dal nañu koy wan tey jile match bi nag bu ñu xoolee match préparation la comme ni ngeen ko xamee waaye nag li nga xamante ni xëy na moo waroon dalal xelu sénégalais mooy ñu jouer match boo xam ne bu dal xel lay doon comme bi ñu def k contre Cameroun wala bi ñu defoon contre Brésil xamante ni maanaam lañu jouer ballon bi di yëg ak moom di wàcc moom waaye nag tey ji li ñu gis moom dalul xel de ci match boo xamante ni équipe ba ñu doon juyal qualifié wul sax ci li nga xamante ne mooy kan bi ñun ñëpp xam ne Niger qualifié amul équipe bu ko yóbbu ci kan ba mu tee Sénégal ba minutes Sénégal mënalu ko dara moo tax ma ne gars yi li ñuy demee ci kan bi moom dalul xel te matchu tey bii dafa gën a yokk li nga xam ne mooy daawut maanaam sikk sàkk la gën a dugal ci bopp yi voilà gannaaw bi nga xamante ni kon ki nga xamante ne mooy Formose Mendy moo marqué benn but boobu nga xamante ne daal dinañu koy am dañu tàmbale ak li nga xamante ne mooy onze bi ñu duggee ci match bi ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy la moo dal di taxaw ci camp yi ci défense bi nag te trois la ñu amoon maanaam défense à trois la ñu joué ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly moo ci ànd ak Moussa Niakhaté ak Abdou Lahad Diallo ñu dal di am ci digg bi mën nañuy wax quatre ci côté gauche ñu am fa ki nga xamante euh, Ismail Jacobs dal di am ki nga xamante ni mooy Crépin Diatta ci côté droite bi ñaar la ñu amoon ci digg bi ñu ànd ak ñoom mooy kii di Lamine Camara ak ki nga xamante ni mooy Pape Gueye ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye ba tey mën nañu wax ci digg bi la nekkoon ndax mu ngi doon jouer ci seen kanam nekk ci gannaaw ki nga Diallo bi pointé ki nga la wax fan la taxawoon ndax bu dee 3-5-2 doon jouer ak Habib Diallo ñoo waroon nekk ca kanam waaye yaakaar ñun ñëpp seetaan nañu match bi ki nga xam ne mooy Ismaila Sarr bu fekkente ne ci côté droite bi doon jouer kon système bi ñu football gars yi nu mu tudd loolu laay laaj 3-5-2 moom xam-xam ne ñaari attaquant ngay am ci kanam am 5 ci digg bi ak 3 ci gannaaw waaye kenn ci kaw moom xaw ma système boobu nu mu tudd kon mën ngeen ci ñëw gars yi bu fekkente ne nag lii système la boo xamante ni maanaam li ñu ko footballé wala ni Ismaïla Sarr taxawee ci match bi lu coach bi santaane la man damay jàpp ne kon loolu coach bi moo yàq suñu match ndax moo créé embouteillage bi nga xam ne xew na ci premier mi bi ci la ñuy njëkk wax muy premier mi-temps bi li ñu joué ci premier mi-temps bi dara baaxu ci am nañu défense à trois boo xamante ni pexe bu juboon mooy ñaar ñi bu ñu dégg maam yóbbee ballon bi Moussa Niakhaté ak ki nga xam ne mooy Koulibaly dañoo war a des ci ginnaaw Abdoulaye Diallo di dem ci digg bi di wàcc comme ni ko Kouyaté doon defee keroog contre Cameroun waaye mel na ni pexe yu jubut ndax Niger dañoo joué li ñuy tuddee bloc ba dañoo taxaw seen buntu kër génn ñu léegi nag ci yooyu jamono amuñu pexe nan la ñu mujjee Abdoulaye Diallo fa mu taxaw lay nekk léegi ki nga xam ne mooy Moussa Niakhaté dina ubbi ci côté gauche bi ki nga ne mooy Koulibaly dina dem ci côté droite bi léegi gis ne ki nga xamante ne mooy Crépin Diatta kon moo war a daw li des ci couloir bi dam yéegal balon bi comme ni nga xam ne la ko Jackson wala boog euh, Ismail Jacobs doon defee ci côté gos bi Jacobs mu amul problème mu ngi doon yóbbu ballon yi ñoom di xeex di yéeg di wàcc yaakaar naa ñu bëri gis nañu match bi nga xam ne def na ko tey kon moom ay mbiram mu ngi doon dox ci côté boobu mais nag côté droite bi foofu moom embouteillage bu rëy fa nekk boo xamante ni la mu yàq ci match bi kenn xamul nu mu toll. li Krépin Diatta war a daw Ismaïla Sarr moo fa ñëw taxaw voilà ba noppi dégg nga maam li Krépin waroon dox yépp moom moo ko doon dox foofule Krépin amul fenn fu mu taxaw wala xamul lu muy def dafay mujj sax léeg-léeg di dugg ci biir. Lamine Camara moom itam des fois mu ñëw fekk ci gars yi foofu maanaam foofu moom man nañu wax ne embouteillage bu rëy ne bu fekkente ne coach bi moo santaane loolu dara baaxu ci bu dee moo yàq suñu match ndax moo kaw mu di ko fay bàyyi dem di daw kon moom lañ waroon teg sax ci latéral bi comme moom dafa bëgg di daw ci couloir bi lii ma gis lay wax léegi nag nga xam ne mooy Habib Diallo moom dafa wéet ca kaw moom kenn waaye da ngeen dama ne bu fekkente ne équipe bi jouer bloc bas wax ne dañ doon jouer comme ay défenseur kenn yéegul léegi ñoom ñëpp ñu ne ci suuf nga am benn jour ci digg ci kanam man ne foofu nan lay demee foofu jarul tëmbal boo sànnee baloo xamal ne gars yi dañ koy jël ndax kenn mënul xeex ak mbooloo moom Habib Diallo moom képp a nekkoon ci kaw buleen wax ne Iliman Ndiaye moo koy jàppale foofu de bal bu jógee Iliman bokkatul ndax moom jour la boo xamante ni dafa gàtt kenn du ko gis muy joué ci bal yi jog ci kaw moom sax xëñ na tey du mat sam doxul waaye daal li nga xamante ni gis naa ko mooy système bi moom moo njëkk yàqu balaa match bi di yàqu mooy bu fekkee 3-5-2 nga ñaar ña dañu war a nekk ca kaw bali di leen fa fekk wala ñuy xotti ci digg bi di yéeg waaye nag kenn ne ca kaw keneen ki ne fële di créer embouteillage man xaw ma ko voilà loolu mooy li nga xam ne mooy dégg nga maam euh, premier mi bi li ci positif nag mooy Pape Gueye def na match bu rëy premier mi bi li ci baax ko liggéey ndax occasion yi ñu jot am daanaka ay tir la yoo xamante ni moom lay jógee donte ne xëy na cadré wul voilà mu ngi doon dóor muy waaye nag mu ngi doon essayé xam nga loolu dafa am solo moom Pape Gueye moo nekk jour bi gën a xarañ ci li nga xamante muy premier temps bi mën nañu jàpp ne sax match bi moo mënoon tànn homme di match moom laa koy jox ndax li tax mooy jour boo xamante ne aj nañ la daanaka 4 mois yoo joué wul Pape Gueye dañ ko ajoon bi mu dellu see ay fan rek la ci ginnaaw mais ku ko gis tey da ngay jàpp ne kii bi ñu tàmbalee saison ba léegi mu ngi joué match bu baax nga xam ne mooy premier temps bi dara baaxu ci wala wala bokk li ci baax bariwul bi ñëw na ci second mi-temps bi coppite yi moom dafa teel a sakkan ndax bi ñu doo duggee rek premier mi-temps bi bi mu jeexee kon bi ñu dóoree second mi bi ab euh, Edouard Mendy dafa dal di génn Mory Diaw jël place am bi ñu génnee ki nga xamante ne mooy Moussa Niakhaté Kalidou Koulibaly ak ki nga xamante ne mooy Ismail Jacobs ñoom ñett ñoom dañoo génn ñu indi ki nga xamante ne voilà mooy Abdoulaye Seck Abdoulaye Niakhaté Diaye ak Cheikhou Kouyaté léegi nag ñoom ñetti ñii ñoo nekk ca gannaaw kon ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Diallo mi nga xam ne moo àndoon ak gaay ci premier temps bi dañ koo jëlee ca défense bi yóbbu ko fële ci côté gauche bi ngir mu waroon def liggéey bi Ismail Jacobs doon def mais munu ko ndax dafa yéex ci bal bi bu ñu ko joxee bal paasam yi gaawul léeg-léeg dafay téye di contrôler ba du gaay ñëw taxaw ci kanamam mu wàññeeku moom kii di Abdou Lahad Diallo kon côté boobu moom la fa Jacobs doon def ba mu génnee la yàqu kenn mënatu ko jouer Lamine Camara kon dafay wéy ci liggéey ba mu nekkoon muy ci digg bi ànd ci Pape Gueye waaye nag yàgguñu ci ndax bi ñu dawale ba ci 61e minute foofu ay changement dafa am ñu fàttali leen Nicolas Jackson dafa door premier mi euh, second mi bi moom itam ndax Habib Diallo bi ñu demee ci mi bi dellusiwul Nicolas Jackson moo daal di tàmbali waaye nag ñu gis ne moom it am na dal di génn Pathé Ciss dal di dugg ki nga xamante ni moom la ñuy wax euh, Krépin Diatta dal di génn Formose Mendy dal di dugg Iliman Ndiaye moom itam génn Abdallah Sima dal di dugg loolu changement yi nga xamante ne moo xew ci match bi bi loolu amee nag gars yi xool bu baax maanaam ana nan la mbir yi di demee dama ne 5 arrière centraux lañ am ci gannaaw wala boog juróom ñoo xamante ku nekk ci ñoom mën nañu wax ne manam bu fekkente ni tey jii mbir yi am na nu mu doon demee yaay taxaw ci gannaaw ndax ñu ñëpp ay défenseur centraux lañu ñoo taxaw ci gannaaw maanaam ci côté gos bi Abdoulaye Khat Diallo la ñu fa am am ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Niakhate Ndiaye ba tey ci wetam ci gannaaw ci défense bi am ki nga xamante ne mooy Cheikhou Kouyaté ñaata lañu 3 nga amaat Abdoulaye Seck muy 4 Formose Mendy ci côté droite bi muy 5 5 yoo xamante ne ku ci nekk mën nañu wax ne ab défenseur central nga lii la Aliou Cissé jeexalee match bi tey jii kon mel na ni euh, pexe yi nekkul woon ngir bëtt gaay dugal leen mais dégg nga maa mel na ni pexe yi ñàkk a bañ jël bit la woon maanaam mën nañu wax loolu ndax bu fekkente ne xëy na yaa ngi wàññi joueurs yi war a attaquer ba noppi di renforcer ñi xamante ne dañu défendre loolu laa ci mën a jàngat. ok léegi partie 6 bi mu ñëwee góorgóorlu na nag ànd nag Lamine Camara Lamine Camara moom it ku waaye ku ne xam na ne def na tey ji match bu baax gannaaw Pape Gueye mën naa jàpp ne bu dee Pape Gueye mooy homme du match Lamine Camara laa ciy teg bu mu ciy teg keneen xëy na partie 6 laa jël wala Ismail Jacobs ndax amul ci kenn ci ñi ma tudd ñoo xamante maanaam li ñu doon xaar ñoom xëy na joxe ko xëy na système bi ñu doon fubalee wala équipe bi ñu doon jógee ci Lamine Camara ndax moo daal di dóor corner bi Abdoulaye Seck mbëkk ko mu wàcc ci tànko ki nga xamante ne mooy Cheikhou Kouyaté mujjee ci ki nga xamante ne mooy Formose Mendy mu daal di koy dugal ñu bëri jàppoon ne sax foo demee dafa am mais déedéet Abdoulaye Seck bi ma ko mbëkkee balaa ki nga xamante ne mooy Formose Mendy mu daal di marqué bi loolu mooy benn bit bi nga xam ne am nañ ko ci 99 laa la wax ci la Sénégal di soog a am bit boobulee dama ne bu fekkente ne ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr mënagul boot équipe bi ba léegi ci ginnaaw Sadio Mané kon may mbiri xamatuma ci lenn Sadio Mané fu mu joué wutee dañuy am problème tey ji nag matt bi ñëwul ci bokkul ci yaakaar naa ñu bëri dinañu xam raison yi tax ak Sadio Mané teewul ci matt bi ñu bëri nga koy tuumaal naa biig bi dafa sàcc gone gi voilà loolu nag mooy li nga xam ne moo ko téye tey jii gone gi moom it sàcc ko ba tax kenn gisul ko fenn bokkul sax ci li nga xamante mooy match bi ñëwul moom Sadio Mané l'international Sénégal kon ma ngay feete li nga xamante ne mooy mariage bi lii moo ko téye ñëw ci match bi waaye feeñ na lool donte ne Sadio Mané léegi ngeen dégg ñu ne dafa màggat voilà li la ñu critiqué ko waaye nag ba fii ñuy waxee rek Sadio Mané la ñu am Sadio Mané mooy équipe nationale bu Sénégal bu fi nekkul yëf yi dafay tagga tembe ndax xañ na ñi ñu yaakaar ne xañ na ñoo ñu ci war a génnee ba fii ñuy waxee jëlaguñ seen responsabilité coach bi tam ba dégg li ñuy xaar ci moom mel na ni waneegulu dal xel ci kan bi nga xamante ne jàpp na ñoo ko war a jël ndax ñun ñooy champion d'Afrique ñooy équipe bi fi mën man daal li kum dal xelam mais man mi dalul sama xel ndax li buñu ko tege ci kanamu Gambie dama xamul ana nan lay mel ndax Niger qualifié wul Gambie gii nga xamante ni quart de finaliste la ci kan bi ñu weesu bu ñu janoo ak moom nga xamante ni derby la boo xam ne ñoom ñu koy ana lan wax bu ni indi nan la ñuy wax Guinée gi nga xamante jamono bi dafa dóor Nigéria Guinée dafa dóor Nigéria ci match amical su boobaa ana nan la ñuy def ak moom nan la ñuy def ak Cameroun bi nga xamante ni dafa mer fanaanoo gannaaw match amical bi ñu am Sénégal dóor ko Rigobert Song waxoon ne lii nag moom ab match amical kese la ñu ngi xaar ci li nga xamante ni kan bi kon ñoom amna na pare dama ne li ñu wane man dalul sama xel ku mu dal sa xel man dalul sama xel voilà lenn daal mooy ci positif mooy résultat bi Sénégal dóor na Niger benn bal ci dara ki nga xamante ni mooy Pape Gueye pour man mooy om du match ku gis keneen mën nga jaar ci commentaire yi gannaawam Lamine Camara laa gis ku gën a def match flop su ma doon wax flop man dama naan Ismaïla Sarr keneen ku may teg soo ko ciy teg wala ma teg ci coach bi bu dee moo ko sant li ma doon def bu dee sant ko ko nag kon Ismaïla Sarr mooy ki nga xam ne mooy yàq suñu mat te lu bari laa xaar ci moom ndax amoon naa yaakaar lool ci moom ne maanaam ji moo ñu ci mën a génnee ndax ginnaaw Sadio Mané ñu bari seen xel ci Ismaïla Sarr lay njëkk dem ndax jàpp nañ ne mooñ ci war a mënee génnee waaye Ismaïla Sarr sans Sadio Mané mel na ni kenn di ko gis fenn kon loolu mooy match bi ci tënk mën naa jàpp na ñëpp joué nañu ba mu des kenn ci ñi wér ci wér mooy ki nga xam ne mooy Fodé bala Touré moom moo wér te jéewul voilà bu dul moom ñi nga xam ne joué wuñu ñëpp dañoo am ay blessure wala ñu jóge ci blessure ki nga xam ne mooy euh, euh, Youssouf Sabaly dafa jóge ci blessure fan yi la ñu la ñëw mu ngi soog a commencé entraînement joué wul ndax gaañu bi mu jógee Idrissa Gana dafa jóge ci blessure joué wul moom itam ndax gaañu gaañ bi mu jógee Pape Matar Sarr dafa blessé moom itam moo tax joué wul Nampalys Mendy moom itam dafa jóge ci blessure moom itam loolu tax joué wul voilà ki nga xamante ne mooy Sadio Mané ñëwul wax nañ leen ko waaye ki nga xamante ne mooy Boulaye Dia moom wax nañ ne daanaka forfait na sax loolu xamaa na dinañ ci ñëw léegi ci kanam ndax coach boo waxoon na ne bu ñu jógee ci match bi danañ ci dal di ñëw danañ ci dellu siwaat kon ci kanam ci mbir moomule moom bokkul woon sax ci feuille match bi mu ngi woon ca kaw moom kii di Boulaye kon loolu mooy li nga xam ne mooy jàngat bi ñu amoon ci match bi gars ku am gis-gis bu wuteeg suñu bos ñu ngi lay xaar ci commentaire yi